héritage boobu dina continuer dañ koy condamné nag daanaka yoo lox condamnation boo xam ne ko condamné liñ ko condamné nga xam ne que comme euh, chaque ñu ko atte def ñu fenn foo xam ne war nañ koo mën a jéggal wala war nañ mën a xoolaat lañ ko teg te adduna bi yëpp ñëpp mën a bénéficier ci disposition boobu de filles sati des des chambres africaines extraordinaires prévoir ko donc dafa mel ni lii lañ bëggoon na am nañ wante moom it la mu jëf ak la mu liggéey kooku dina des ci africain te histoire dina ko retenir. léegi nag. yàlla ne yonent ak salaam salaam. Sul wataani sa askan bokk na te moom nag euh, li ñu xam ci moom la ñu wax ci moom mooy ku bëggoon réewam ak askan ah ànd ak ful ak fayda euh, parce que loolu la wane. waaw euh, loolu la wane ñu lancé seen bu opération nationale libéré ko Tchad moom sax moom arrêté woon na dem na sax ba arrêté ak monsieur Jokalante moom. combattant la woon léegi nag ak ak l'Afrique loolu ànd nañ ci loolu la ñu doon ñaareel bi mooy ne gàcce ci Sénégal di feebar de Covid dina en prison jabaram gaañ na ñaar yoon ñetti yoon laaj na ñaan na leen ne leen nañ ko libéré parce que mag la woon fii ci Afrique dañuy respecté mag la woon waroon nañ ko bàyyi dellu kër ah loolu nanguñu ko def amuñu benn yërmande ñoom euh, Macky Sall bi lii ñëw dal ko Covid 19 gàcce la ci Sénégal parce que Sénégal dëkku teranga la Sénégal dëkku jaaxle da ngay ne damay ñëw Sénégal waaw kon saa ba ñëw sala sala ñoom si Seydina Ousmane euh, bu ñu jaaxlee màgg yàlla daf leen wax dem ci Afrique waaw dem leen fële ci ci ci Éthiopie waaw Afrique noonu la masakal dëkku teranga la euh, jaaxle ñëw ñëw fii nag tëj ko kaso ah, ba muy jàpp Covid-19 ci kaso loolu gàcc na ci Sénégal gàcc na ci Macky Sall gàcc na ci gouvernement